Eh, Barça de actuellement xool leen gars yi la muy dox doxaleeg la Yamal lii mooy kenn du ko jënd clause libératoire bi mu war a signé contrat bu bees bi noonu lii moom naari sax bu ñëwoon boole seen xaalis duñ ko jënd xool leen lii. Eh, eh. sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka su noonu j'aime ñoo far na. walaay ndeysaan. saa yi gerte la quoi ñoo far. avec mon grand Diouf. mais mais Bamara lan nga wax. walaay ndeysaan. walaay ndeysaan kese. asalaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ci nekk seen tur ak seen sant baax sax nag gars yi balaa dara abonné leen sama compte bu bees bi ñi nga xam ne abonné guñ fi di liker di commenter di partager ñëw ci FC Barcelone mi nga xam ne la leen daloon ci kookee di yeneen joueurs yi nga xam ne bàyyi nañ leen ñu dem ak ñoom seen du leen dal ci kii di Lamine Yamal. gis nañ fu lu ne Barça yàgg naa jooju ay joueurs yu dem bii moom dañ koo blende benn anime boo xam ne nii moom naari buñ booloon seen i xaalis ñëw noonu duñ laal Lamine Yamal Lamine dafa signé contrat ba 2026 mais la ca gën a garaaw clause libératoire bi mën naa ni 1000 milliards d'euros waxuma la 1000 millions d'euros de waxuma la 1000 d'euros de 1000 euros de 1000 milliards d'euros loolu ku koy laal bii belende moom jéggi na dayoo avant may continuer ci vidéo dama leen laaj yéen Barça lu ko Lamine Yamal ak clause libératoire bu bii Lamine a est-ce que yaakaar ngeen ne ni war na dina mën a euh, réussir foofee ci FC Barcelone comme na ko Messi réussir est yaakaar ngeen loolu en tout xam naa xel que ni am na talent mais ma leen laaj ci commentaire yi nag yaakaar ngeen ko ou moo xam nga doon catalan wala merengue nga bindal ma ko ci commentaire en am na talent de waaye yàgg nañ fay gis ko am talent jéeg saay suux man nag yéene naa ko mu réussir bu baax a baax a baax nag talent la tey it bëgguma mu rëcc football mondial képp kuy amateur de foot bëgg yooyu di am évolution bi ñoom seen mais 1000 milliards ba pare contrat bi ci âge am ci catégorie ëpp li muy laal ci salaire ci foofee ca FC Barcelone ay maanaam catégorie quoi mais c'est énorme ça Lamine Yamal baax saa foog na ko teg na ko foo xam ne nii njaay yi ah waa baax na li ma gis ni yéemale 1000 milliards d'euros kan moo koy kan moo koy foqati pour war koo mën a jënd diggante contrat bi faaw nga génnee lu tollook loolu pour koo mën a foqati non mais c'est énorme mu ngi noonee gars yi ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee képp koo xam ne abonné goo suma chaîne YouTube dugal suma bio TikTok nga bës ko YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube nga abonné activé cloche si daan vidéo mu jeex jaajëf. ci après daal la nga koy ah. xanaa après daal la nga koy jox. ah. Alhamdulillah. بل منن تخرج من أفواههم الحكمة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على takbir Allahu akbar ay namangin yàlla yàlla def na ñu am ñëpp masha Allah yàlla yàlla def ay sinwa ngeen mokkal alxuraan ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment loolu nag leen bu baax baax si yaatu masha Allah yàlla yàlla def ay sinwa def leen ay bëccëg